boobu la jamono kon te bokkuñ benn diina kon loolu moo lay jàngal ne pour ñu nekk benn foog lu ñoo wax tolérance muñalante jéggalante jëlalante yenn yi respectante war na koy fekkee kon bokki julli diine ñu ngi jàngale ne ñu ngi fàttali ñëpp ne islaam day diinaay bennoo la diinaay jàppante la diina la joxal ne benn borom moo moo bind moo wàcce diina ji dina la boo xam ne yonentam bi benn la du ñaari yonent dina la boo xam ne saxaaba yi ko toppoon ñenn ñooñu rek la ñeneen du ñeneen ñooñu lag ñoo jëlee li yonent bi sallallahu doon jàngale undi ko ci xeet wi du ñeneen dina jooju nag bu ñu doon jàngat màndargaay yi yim samp pour nit ñi nekk benn bëri na bokk na ca moo di ne ki ñuy jaamu kenn la wax wahdatul maabud kenn la ki ñuy jaamu kenn la maanaam amut yenn jullit yoo xam ne dañuy jaamu yàllaay përëm ñii da jaamu yàllaay euh, wurus ñii da jaamu yàllaay xaalis comme ni nga xamee ne euh, euh, yéefar yi dañ ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj yow yàlla ji ngay jaamu di ñu ci oo moom nu moom nu mel yàllaay xërëm la am dañ ko liggéey ci përëm wala dañ ko liggéey mooy dañ ko liggéey ci bronze dañ ko liggéey ci diamond wala dañ ko liggéey ci lan Ah, ñoom booba seen yàlla yi ci loolu lañ ko laan liggéey kon nga déggee ci ne bon ñoom seen yàlla yi wuute woon na yàlla juñ liggéey ci xànq ak yàlla juñ liggéey ci tàndarma yàlla juñ liggéey ci suuf suñ eh, dajale moto moto ko defal ko yàlla ak yàlla juñ liggéey ci or dëgg-dëgg yooyu yàlla du benn ñoom nag ñuy jëf ne seen imagination li mu leen jox mooy yonti bi tam xaj na yàlla ju mel noonu lay jaamu ñu ñëw laaj ko yàllaam ji ji muy jaamu meloo kaanam yàlla wàccee qul huwa allahu ahadun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 yalla mu ngi mu ngi xëcc ni ñu xamal moy kan moy ki ñëpp jublu moy ki ñëpp jublu moy lan ci niñ ko mëna déggé ci dégg gu gatt mo di né ku xey rek yalla ngay huti ku xey soxla bi ngay huti yalla rek moko ko moko mëna facc ba ci melantane ci suuf si bu xëyee génn paxam di uti yalla lay huti dégg nga nag wa ci gëtt ga bu génnee dem di ñi ko sam yalla lay huti sam bi ko top pour nag yi eh, suur yalla lay huti borom nag yeeg jënd nag yee jox sàmm ba muy muy ko sàmm yàlla lay wuti ka ca palais ba di garde réew mi kooku yàlla lay wuti ka ca soldat ba garde fetal di garde nit ñi yàlla lay wuti ka ca office bi di liggéey yàlla lay wuti ka yàlla lay wuti mooy ñëpp yàlla lañ yàlla mooy ñi mooy yàlla mooy ki nga xam ne fajug soxlaak ñëpp ci loxoom la nekk loolu nag bëgg yoon salaa salaam waxee mu ngi jàngal gaay na leen seen xërëm yi amul kenn ci ñoom yoo xam ne lenn ci yooyu nit ñi di wuti nekk na ci ñoom koku mooy yalla ku nga xamne moy moy ki jara jam mom ki nga xamne ne suñu soxla mom rek rek rek moko meuna faj moom ki nga xamne ne lim ñu bëgg def kenn mun a tere mu def ñuko ko kon yalla yalla bëgg suñu li gën koku moy ki nga xamne ne allah moy mooy samat mu teg ci ne nak ne lem yelit koku mom mosul jur dara bayako ci mom ñuy ko askanal li ne yalla la bokk walam yulad bayako ci kenn mom yalla ku ñe langam ci nangam yalla mu ngi soso ci nangam dedet koku dal amul morom ci dara kooku mooy yàlla subhaanahu wa taala moom la ñuy jaamu ñun ñun ñun jullit yi te jullit yi yëpp moom la ñuy jaamu kon koy nee nag ki ñuy jaamu kenn la benn melokaan la am ñun ñu koy jaamu buñ ne dëggu nañ ci suñ jaamu gi luy war a tere ñu nekk benn daal man gisuma ko ba pare bokk na ci mandarga yi nekk benn ci liin lislaam ci nim sampee ay jaamaa ay jaamu yàlla am bokk na ca moo di ne jaamu yàlla yi gën a bëri ñoo bokk jamono bu ñu koy def benn jamono la fu mu nekk nii xaj màkka benn jamono la fu nekk nii weeru tabaski wii weeru weeru digg wii ci la weeru dem dem dem màkk commencé wala ba keroog bañ julee korité la weeru aj teru ñetti weer la alxajju ashuru maalumaat xaj yi weer yi ñu war a xaj ñetti weer la fa man farada fii nal xajja ku ci bëgg xaj yi bu demee ba nag falaa rafasa wala fusuq bu mu caaxaan bu mu def génn topp kon ñetti weer yi jamono bi ñuy xaj benn jamono la ni ñuy xajee benn benn jaamu yàlla la kiñ koy defal kenn la ba pare itam barab bañ koy defé benn barab la yooyu dëgg dëgg jàngat la yoo xam ne kenn borom xel sax ci lu sax ñu waxee la sax loolu sa xel war na koy mën a liggéey nga xam ne lii la su ko defee nag loolu dafa war am jëyit buñ dem rek wala ñu ko xolaan ci télévision bi ñu ne rafet na rek aj gi neex na bëri na nit waaye li tax aj gi bëri nit te neex kan lañ lañ fa uuti woon lañ fa woon lan la ñu lan la baye ci suñu xol yi ak suñu jikko yi loolu lañ ko war baye xel bu baax bokk na ci li nga xam ne daf ñuy benn le mbokki jullit yi moo di ne xeetu lislaam benn xeet la amul ñaari xeet wa anna haasi ummatuk ummatan waahida bokk na ci li ñuy bennalee moo di ne yàlla yàlla yénti wax na ne innama ilahukum ilahun waahidun bokk na ci li ñuy benn bennale mooy ne risaala bi nga xam ne muy message bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam undi jàngale ko benn message la interprétation si mën nay wutee waaye benn message la kon loolu yëpp war nañuy benn la bokk na ci li ñuy war a benn bennale mbokk jullit yi xibla bu ñuy jublu bu ñuy jub ñuy julli benn xibla la bokk na ci li ñuy war a bennale mbokk jullit yi bu ñuy jaamu yàlla kàddu yu ñu koy jaamu benn la ca julli ga benn la ci alquran ba benn la ci haj ga benn la kon li yàlla sant yëpp benn la xamul utee te ki koy defal kenn la te ko indi woon kenn la te fi ñu koy defee benn waxtu la benn barab la benn defin la yooyu jàngal la bu rëy boo xam ne ñun jullit yi mu ñu jàngal ne ñun daal yàlla li ñu digal mooy ñu jëf ci mbooloo te ñu nekk benn kon yàlla yàlla may ñu dégg ci maanaa yooyu ñu dund ci ndax loolu mooy jëyiti jaamu yàlla gi gi war a bàyyee ci suñu xol yi war koo bàyyee suñu jikko yi war koo bàyyee ci suñu jëflante bi yal na ko yàlla may yal na yàlla def ci réew mi jàmm ak xiwal yàlla def fi jàmmoo ak benn gi fi nekk yal na yokku yal na yàlla dimbale ñi nga xam ne ñoo jiiti réew mi eh, ubbi seeni xel yokk ko euh, xiwalal naataango ak ñi nga xam ne ñoo topp itam yéen yàlla may leen loolu digg topp euh, ñu ngi siyaare ñëpp di gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekkoon ci technicien bi ku demee nekk Cheikhou Dia ak ñeneen di leen nuyu di leen jox liggéey ba beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.